Boubacar Biaye honorable ñu ngi lay dalal. madame maa ngi ñuy fàttali suñuy auditeur ni tey ñoo ngi dalal honorable député Boubacar Biaye moo doon tamit président conseil départemental bu Sédhiou Sédhiou honorable lundi la ñu am seen premier cas confirmé le 27 avril gi ñu génn mu doon euh, benn nit bi ñu ne prédicateur la ndax ci Sédhiou la dëkk wala dafa jóge feneen. Euh, dëgg la c'est vrai que lundi la la waa région Sédhiou jot euh, seen première euh, cas Covid 19 euh, prédicateur nañ ko waaye Louga la jógee foofu la jàngee alquran balaa muy dem Arabie Saoudite jabootam nekk Mankono Mankono benn dëkk la nekk commune de Oudoukar ci tali Carrefour Ndiaye Kolda daanaka bi bi président de la République di jël dogal couvre-feu ak état d'urgence mhm. daf ko fekk Louga ci kilifaam mhm. donc comme njabootam mankono la nekk donc euh, mu def pexe lépp pour dellu gis euh, ay doomam jabaram mhm. loolu moo tax jël ay photo jóge Louga ñow Dakar Dakar dem Mbour Mbour Kër ay traversé frontière euh, Gambie mhm. noonu la noonu la fexe ba dugg fu mu cosaanoo daanaka mbir mi noonu la demee mais da nga ko invité mooy samedi bale passé ci mhm. benn émission benn rajo communautaire commune bu Sédhiou rajo municipal bu Sédhiou diggante quinze heures ba seize heures la animé donc euh, boobu émission daanaka dafa jot jaabante ci biir département bi ngir faj ak sox ay soxla dégg naa sax demoon na sax Kolda mhm. ak Ziguinchor xaw ndax dëgg wala dëggal mais loo xamante ne moo gën a woor donc euh, Louga la jógee ñëw Ndakaar Ndakaar traversé Gambie ci ak oto ay oto clan clandestin yi mhm. noonu la duggee ak moto Jakarta diggante euh, Carrefour Medina Wandifa mankono fu mu cosaano tamit euh, samedi jël beneen moto. Mhm. dem Sédhiou animé benn émission. donc euh, ak diggante quinze heures ba seize heures. dañoo bëggoon xam moom sëñ boobu ñaata fan la jot a def Sédhiou ba mu jógee Louga léegi. bu mu jógee Louga léegi jotoon na def plus de dix jours. Mhm. am na ñoo xamante ne presque euh, quatorze jours lañ ma wax mais lu gën lu wër a def na dix jours à peu près parce que barki barkat démb la santé yaramam xaw sunnaat donc euh, ci la dem euh, poste de santé bu mankono ngir xam exactement lan la noonu la waa personnel. hôpital euh, dispensaire boobu woo ñi nekk Sédhiou. Mhm. mooy comité régional de pilotage bi. pour que ñu ñëw nemmeeku ko xam exactement lan la mbaadu Covid. bon moom sax dafa bañoon sax euh, médecin chef déplacé wu ñëw moom mooy yóbbu boppam ba Sédhiou. Mhm. def prélèvement pour ngir ngir ngir xam exactement est-ce que feebar bi moo ko dal wala déedéet. mbir noonu la demee. d'accord gannaaw nag bañ déclaré premier cas positif bi euh, si lendemain bi ñu gis ne ay cas yu bëri nemmeeku nañ fa lu toll ci vingt cinq nouveaux cas confirmés ndax yéen euh, autorités yi jëloon ngeen euh, anticiper woon ngeen ci li ni ba jël ay dispositif pour mën a accueillir nombre bi doy nii. en tout cas nombre vingt cinq man bettuma sax d'ailleurs. maa ngi xaar encore en tout parce que soo seetee moom njabootam nit euh, waaji saa njabootam presque juróom fukk ñaar ak benn doomu aadama moo nekk ci ci këram xam nga ay kër yu yaat la mm-hmm. man ko no ku xam man ay soose yi ñoom dañuy bari euh, ay nit seen seen kër yi soixante onze mm-hmm. mm-hmm. sans compter euh, ñu mu jota nuyonte ci biir dëkk bi ak euh, fu mu demoon di animer benn émission. d'accord ñooñu tamit euh, ñu mu ñu mu doon euh, kii waxtaanal joxante loxo ñooñu dañuy wër département bi donc loolu moo tax man vingt cinq ans bettu donc loolu indi nañ taxari ci man. Mm-hmm. parce que ku xam Sédhiou xamal ne région la boo xamante ne dafa tumuranke ci wàllu plateau médical. Mm-hmm. benn hôpital la ñu la am boobu hôpital EPS 1 la ku xam euh, carte sanitaire da ngay xam ne boobu benn hôpital amu fa. Mhm. centre de santé la effectivement donc centre de santé boobu benn équipe euh, ministère de la santé ñëwoon nemmeeku loko yi ba jot teg loxo ci euh, structure donc Jalir. Mhm. bu ñu tabaxoon donc euh, presque yaa dafa la trois trois ans mhm. foofu la ñu jël ay benn niveau ak deuxième niveau pour fekkente ne donc cas covid am na foofu lañu wara donc euh, yóbbu malade yi pour faju len mhm. donc euh, en tant que PCA jot naa waxtaan ak sama directeur de l'hôpital pour pour mu jël matuwaay yëpp defar lu ñu war a defar yëpp ay clim pour que au cas yàlla def na ñu am ay cas Covid pour ñu mën leen donc euh, faire ci anam bu jaar yoon. d'accord mais sinon en toute sincérité. région mhm. la boo xamante ne vraiment amul euh, ay infrastructures bu ñuy permettre ñu jël ay cas loolu moo tax donc ki indi cas bi. Mhm. Kolda lañ ko jot a pour pour faj ko en attendant que suñu région mën na am ay plateau boo xamante ne dina jël yeneen cas mhm. ndax am na tamit personnel bu outillé bi nga xam ne formé nañ ko ngir mu moom it ñu taxawu. nit ñu nga xam ne euh, Covid bi jamono ji moom la ñu am. pour le moment euh, amagul benn personne bu ñu formé. kon anticiper leen ci dara. Euh, bon euh, ñun en tout cas comité bi ñun yëgal information lañu ñu am. Mhm. yëgal information lañu am euh, di ko jotali waa ministère de la santé waa ministère de la santé ñoo am moyen ñëw <clears throat> def liggéey boobu. Mhm. ñoo am am xam ñëw former donc à la base. Mhm. ñun formation bu ñu def mooy <clears throat> sur le plan préventif. pour que population di waxtaan ak pour que euh, équipe di waxtaan ak population yi. ñu mhm. leen euh, fagarloo. mooy ci li ñun ñëpp di def. sol masque yi raxas loxo yi. Mhm. loolu en tout cas comité bu nekk euh, sur place. loolu loolu loolu mooy liggéeyam. Mhm. maintenant sur le plan sanitaire loolu liggéey ministère la certainement du du ñàkk ministère jamono ji comme cas positif am na. ne jël matuwaay matuwaay yooyu pour que euh, au moins ku feebar ñu mën la faj euh, foofu euh, loko yi ministère teg loo xam pour que Covid bi ñu mën ko daan foofu ci région. justement wax ci li nga xam ne moom mooy seen maanaam yéen moom foofu foofu ngeen mëne tey ji autorité Sédhiou yi lan la ñu teg pour stopper li nga xam ne mooy propagation bi. bon euh, pour stopper la propagation déjà c'est vrai que euh, démb ci prévention la ñu nekkoon voilà que suñu système préventif dafa am faille ba. Mhm. ay cas déclaré na. Mhm. léegi <clears throat> jamono bi may wax ak yow euh, gouverneur ak naata naatangoom ñu ngi def benn réunion de sécurité. Mhm. CNA foofu la ñuy gën a xam yan mesure donc euh, euh, curative la ñuy proposé waa région mhm. donc euh, naroon nañu am benn réunion régionale du comité pour évaluer suñu système préventif mhm. mais malheureusement région kii ndaje boobu antulo am ndax cas mais <coughs> pour le moment donc mënuma soree Mhm. la ma xam à l'heure la région préparé wul donc euh, accueillir ay cas de maladie Covid. yu doy nii taxawaayu maire bi ak euh, président conseil départemental bi lan moo doonoon seen taxawaay ba fii. waaw loolu seen taxawaay ci wàllu prévention pour que ñu mën a ñu bañ a am ay cas. Mhm. di jàppale population yi mooy pour euh, loolu la ma mën a seede la puisque sama dembe euh, dama mobiliser ay maire yëpp mhm. waxtaan ak ñoom pour que ñu dugal seen loxo ci euh, ci préparation mhm. ñu bëri bëri bëri bëri def nañu ay engagement di appuyer donc mooy comité sous préfecture yi ak comité département comité régional su ma la joxee benn exemple comme mairie Sédhiou mhm. donc euh, jot régional mhm. su ma la joxee benn exemple conseil départemental mooy première structure ci région yëpp mhm. bu njëkk a yëkkati xaalis bu takku takku au moins euh, lu ëpp un million jébal ko euh, gouverneur pour que mu commencé donc Euh, liggéeyam. Mhm. ngir dem ci département yi waxtaan ak nit ñi donc euh, installé point point yi. Mhm. def na ko ak comité départemental. donc euh, loolu moom mun naa ko seede ci commune yi jo soo demee Marsassoum dañuy fekk militaires yi oto maire bi la ñu jël moom la ñuy moo moo moo leen di permettre di def ay ronde ci ci zone boobu. Mhm. jot na jël jënd dix dix dix tonnes de riz donc euh, distribuer ko ci population yi loolu moom mun naa ko seede puisque euh, acteur la ci loolu. Mhm. gis nañ tamit conseil départemental mhm. à à l'heure là. Mhm. donc euh, relation bu mu am ak directrice de la pharmacie muy ANECSEC kooku indi naa ay produit yu bëri bari bëri bëri may ko région bi. donc mi ngi commandé presque vingt tonnes pour. jàppale population ci ci ci wàllu alimentation parce que région bu dool la tamit donc loolu moom département bi waa politique territoriale def nañu ko pour aar département bi jàngar mi bañ ci dugg. mais mhm. malheureusement donc. Euh, am nañu faay euh, dugg na ba pare. d' accord wax ci position géographique bu Sédhiou gis nañ ne Carrefour la dem beeg dikk bi yemb na bu dul si biir réew mi rek ak yeneen réew yi nekk environnement yi te ji ndax taxaw ngeen temm ci frontières yi ba dem beeg dikk bi ñu dakkal ko. waaw comité régional euh, mi ngi def euh, lu mu mën ak personnel sécurité bu mu yor. Mhm. c' vrai que ci wàllu police benn Sédhiou kese moo am police. Mhm. te doyul. Mhm. personnel doyul gendarme parce que xam nga foofu moom amul benn légion gendarmerie. Mhm. daanaka ay poste de gendarmerie moo fa am ay brigade brigade bu gën a bu gën a mag boobu cent la nekk boobu ay quelques éléments la. donc militaire la ñuy mujjee utiliser pour tëj frontière diggante Goudomp ak euh, Guinée Guinée Bissau frontière boobu élément yu exactement ci euh, département de Sédhiou mënuñu tëj frontière boobu parce que ñun euh, xayma nañu presque lu mat euh, ay fanweer yoon clandestin mhm. yu nekk ci frontière boobu amul personnel bu doy boo xamante ne mën nañ tëj surtout surtout xam xamal ne front kii fore bu gën a mat donc Sénégal côté boobu la nekk mhm. donc région Sédhiou amul moyen jamono ju nekk pour tëj frontière diggante euh, département Gouram ak département Sédhiou bon du côté de la Gambie. Mhm. foofu moom mun nañ comprendre parce que Gambie fu mu toll ne presque cas amatul. fii mhm. cas ñooñu moom mun nañu wax ne presque wër nañu foofu moom danger nekk fa danger bi mooy côté Kaolack lay jógee bu dee nit mun na jógee Kaolack jaar Gambie dugg c'est-à-dire Bounkiling. Mhm. foofu mooy danger bi te côté boobu tamit amul. benn personnel bu dee boo xamante ne mun na mun na tëj frontière yi fekkante ne vraiment nit ki jóge na Gambie ci dugg donc euh, département donc da ngay comprendre ne région à haut danger à haut risque la. Mhm. jamono bu ñu toll ne mais tey tey tey tey tey ne Sédhiou doomu jàngoro dugg na ci nit ñi parce que déjà ki indi doom jàngoro bi déjà dina wàllu ëpp loo xamante ne donc soixante onze personnes la déjà puisque dans famille seulement soixante onze personnes donc foofu foofu mooy risque déjà bon day wéy na buus. merci beaucoup euh, honorable merci merci madame. merci beaucoup may fàttali suñu auditeurs yi ne honorable député Boubacar Biaye la moom moo doon tamit président conseil départemental bu Sédhiou doonoon suñu gan tey merci beaucoup honorable